asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV tey nag euh, ñi génnoon ñëw fi nga xamante ne nii mooy La Plata digganteem ak capitale di waxtu ah ñi ñëwoon fi seet si mbokki jullit yi fi nekk rawatina waa kër Serigne Touba yi ah ki ngeen gis mu toog mooy jëwriñu daayira bi di Serigne Moustapha Fall. kon du ñu def lu jox ko kàddu yi mu nuyoog mbooloo mi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ak ñëpp te bal ak ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ak xéwal ak tawféex di ñaan Serigne Touba yàggal ko fi lool te wéral ko kasaalika Serigne Cheikh Jëmm Fall ak ñaan ñëpp jàmm ak xéwal ak tawféex fu waay mën a dégg a nekk di dégg suñu kàddu ñu ngi lay ziar di la ñaan jàmm ak xéwal ak tawféex di ko sàkku ci yow jërëjëf sëñ Assane Baye Fall di leen ziar yéen itam di leen masawu ci maanaam yoonu sore bi ak bëgg liggéey Sëriñ Tuubaa nga xam bëgg ngeen ko liggéey Sëriñ Tuubaa mu ñor leen ngeen fekk fi maanaam waa jullit comme ni nga ko waxee waa dëkk bi di La Plata ak waa kër Sëriñ Tuubaa sëñ Moustapha ñoo ngi lay xaar gannaaw bi nga nuyoog mbooloo mi eh, tey yaa ngi ànd ak seen émission jëmmal daayira yi tey ñu ñëwoon fii ci La Plata sëñ Moustapha ñaata at nga def fii ci réew mi Touba Argentine. waaw jërëjëf sëñ Assane Baye Fall eh, réew mi di tubaa Argentine maanaam ñu ngi fi def maanaam ci jamono ji juróom-benn at am nañ ko fi. biir juróom-benn at yooyu daayira bi nan ngeen def ba taxawal ko ak it ci sababu kan la daayira bi jógee ba taxaw. ah biñ fi ñëw boobu maanaam ay sénégalais néewoon na fi trop biñ fi ñëwee tamit fekk nañ fi maanaam ay bi mais yàlla dogal na boobu matuñu woon lim bi yàlla dogalee ñu ñëw fi maanaam biñ demee benn dëkk bu ñu naan Marine Plata fa lañ toog bi ñu xewle ba pare noonu di laaj dépasse sëñ Xaadim jóg ni maanaam indi leen xaalisub daayira bi ñu ko doon kafantoo noonu comme yëfi murit rek après ñu dajale ko muy seetante ma téye ko bi ñëwee ci dëkk bi après ñu nañ taxawal daayira ñu taxawal daayira ca jamono booba maag sëñ Dawda Kama ñoo dëkkoon ca booba ñu ne maanaam comme que dañ fiy door ñëw ca dañ ko bëgg a taxawal ca looy taxawal lu nekk da koy commencé ci lu wayaf ñu doon laaj suñ ko pese kenn ku nekk booba amagul noonu fu ñu dajee chaque alxames maag sañ Dawda Ka dañu ànd di wër kër yi di laaj kenn ku nekk ñu bind sa tur ku joxee ñu bind la ba ci noonu nga xam ne dem na mbooloo mi commencé bari sëñ Ibrahima Khalil ñëw fi bi mu fi ñëwee biñ ko ko yëgalee mu jox ñu turu daayira muy jës bul xulóob biñ demee ci magam ju baax ji sëñ Sidal Muxtaar mu feddalil ñu ko ci nii daal lañ ko taxawalee bu bërëb bu ñu dajee chaque dimanche ñu daje. waaw li nga xamante ne nii mooy jëwriñ ji mbooloo mi ñoo la ko fal wala noonu ngeen doxee rek ci daayira bi ñu jiital euh, ci daayira bi ci sa pas loolu it bëggoon nañ cee xam dara. waaw jërëjëf laaj solo. ndaxte maanaam bi ñu dajee dañoo war a tax bi ñu suñu Ibrahima Khalil joxee tur woowu muy daayira Jazbul Xuloob ñu war ni dañoo war nag léegi comme que dañu wër di laaj dañoo war a wut fu ñu dajee maanaam bis buñ buñ boo xam déggoon nañ ci ñu am fu ñuy dajee bi yàlla dogalee bi ñu waxtaanee ci loolu ñu ne kon jëwriñ mënut a ñàkk nan tànn jëwriñ yàlla dogal na man nag musuma nekk jëwriñ daan naa bokk ay daayira maanaam li ëpp ci mbooloo mi mbar wala mën a ñëpp sax dëppoo ci ni Moustapha lañ yow lañ koy def te booba sax mbir ma tiital na ma trop ndaxte yaakaar naa kii naa ba sonn waaye nag bu la ñëpp ne yow la dootoo ci man dara liggéey Sëriñ Tuubaa war nañoo jaral loolu ñu jël engagement boobu ci maanaam turu mbooloo mi waaw gannaaw bi la mbooloo mi jiitalee nga nekk ci seen kanam ne yaay seen jëwri ndax mbooloo mi nga jiite ndax ñoom neex nañoo jiite wala am na ay gàllankoor yu nekk ci biir ngir boo ñu ko mënee leeral jërëjëf mbooloo moom kenn ku nekk xam na nu muy doxe ndaxte mbooloo wax dëgg yàlla ay nit ñu bari ñu booloo lay doon ak wuute dina ci am waaye wuute yu du am solo wax dëgg fa yàlla maanaam naqari wu ñoo jiite ndaxte maanaam dinañ di teew te ndax dañ di daayira li ci ëpp solo mooy di teew di teewlu cay teewal te yooyu am na fi yeneen yi des nag moom ay waxtaan ba dégguloo rek te maanaam ci ni ñu sose dayre bi ak ni ñu ko sampee lépp loo xam ne xalaat la buñ ko yëkkatee dañuy wax ni jëwriñ dama koy wax man maa koy wax du maqaama du daraja maa ki fi fanaan si biir ñoo yem ci daayira bi bépp xalaat bu ñu yëkkati maanaam dañu koy waxtaane ba déggoo ci donte ne ñëpp mënuñ cee déggoo tamit li ëpp ci mbooloo mi la ñu wax rek loolu ca la ñuy dox bañ ko taxawee ba léegi ci loolu la ñuy dox lépp loo xam ne si ne maanaam mébét la wala waxtaan li ëpp ci mbooloo mi lu ñu déggoo rek ca loola la ñu dox. waaw ndax euh, bu ñu xoolee daanaka mbooloo mi macha allah takku na lool ndax jàppalante mi ngi am ci seen biir ndax kenn ku nekk xam na ne Argentine amuñu fi ambassade euh, lu ci bare bare bari ci daayira yi lay jóge ndax mbirum jàppale wante ci seen biir am na fii ci La Plata. jërëjëf sëñ Assane Baye Fall di profité di nuyu di ziaral suñ mbokk yi nga xam si ay membre te yàlla dogal ñu nekk Sénégal ñu ngi leen di bu baax waaw loolu de boo ko laajee dinaa ci sawar tontu wax dëgg yàlla lu fi am la ndaxte lépp loo xam si ne arrivé na fi doomu aadama mbokki jullit yëpp di nuyuwaale suñ mbokki taalibe yi ñu fi nekkal muy waa Jamia Seex du ñu baaxit xam si ne mënoo fee xàmmee maanaam kii fee la bokk kii la fee la bokk lépp lu mën a doon ñoom lañ koy àndal bépp problème bu fi ab sénégalais am dinañ ci taxaw nañ ca war a taxawee ba fexe ba rek la loolee biñ fi nekkee ba léegi lépp loo xam daal jafe-jafe la nit am ko am ko fi buñ ko yëgee moom des na ca def luñ man suñ kem kàttan yaakaar naa boobu ba léegi ci loolu la ñuy dox wax dëgg yàlla social bi mën naa ne ci xol yi la nekk parce que kenn ku nekk da jàpp ne sa morom yéen a bokk ndey ak baay te luñ bokk dafa foor ndaxte bokk ndey ak baay lu lu rëy la waaye yaakaar naa bokk Sëriñ Tuubaa moo ko gën a kawe waaw ci foofu la ñuy xoole moo tax képp képp koo xam ne si maanaam am na fi jafe-jafe buñ ko yëgee des na ca def ay kàddu def ca lañ ca war a def suñu kem kàttan wax dëgg yàlla loolu maanaam mbooloo mën nañ cee def seere depuis bi ngeen fi nekkeek léegi taxawal daayira bi macha allah mbooloo mi ah, takku na lool ndax ah, mos ngeen a eh, daggal nit bi mu jóge ci addiyee daayira bi ndax loolu mos na fee am mu jëm Sénégal loolu moom buñ ñu sañoon nit nga leeralal ñu tuuti bu dee mos naa am. waaw jërëjëf loolu maanaam am na nu mu fi amee woon waaye maanaam ci condition wax dëgg yàlla ak guñ foofu maanaam képp ku fi am jafe-jafe ba nga xam si ne yittewoo ñu daggal ñu daggal ko billet te yàlla bu mu fi gaaw a waaye daal am na fi maanaam mbokkum taalib moo xam seen nekkoon fi ami jafe-jafe maanaam ci kees gi lañ génn daggal ko billet waaye maanaam ñun lépp luñ fi def rek ñoo mbokki jullit yëpp dañ ko ci générali dañ dañ dañ leen ciy woo biñ defee noonu tamit ba loola lijjanti ko ba ba loola jàll maanaam dañ maanaam mbokki taal bi yëpp mbokki jullit yi nekk dëkk bi yëpp dañ loolu ku nekk war na cee dugal sa loxo ba nga xam maanaam mbokki taal bi fi nekk yëpp dañoo génn seen addiya maanaam biñ ko dajale ñu delloo ko foofu waaw waaye biñ koy dagg foofu xaaruñ ci woon ndaxte bu loolu am doon tamit kon loolu loolu te loolu la ñu dox rek. wax dëgg yàlla kàddu yi tegu na ci dal ah, kon duñu def lu dul rek eh, jublu ci ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Thioune eh, di porte parole lu daayira Jazboul fii ci La Plata sëñ Moustapha ñoo ngi lay ziar. Eh, sëñ Assane ñu lay ziar bu baax di leen nuyu di nuyu mbokk taalibe yi nga àndal yëpp jógee capital ñëw ba fii ngir ziar si daayira Jazboul Khoulob ñu ngi leen di tatagal di leen dal di leen bu baax a baax. sëñ Moustapha ñu ngi delloo ziar bu baax laaj bi ñu lay njëkk a laaj mooy ñaata at nga def fii ci Argentine. waaw Argentine ci waxtu yi day ñu ngi fi def juróomi at yu topp du toftal ñaari weer. dañ la doon laaj na question lan moo tax ñu tëb a tëb fal la porte parole daayira bi ah, danga doon nit koo xam ne yaa ci dàq wax wala da doon nit koo xam ne pas-pas bi daal moo tax ñu fal la ko loolu it bëggoon nañ nga leeralal ñu ko tuuti rek li tax ñu fal la porte parole daayira gis Jazbul Xuloob. Ah, jërëjëf sëñ Assane <coughs> porte parole daara Jazbul Xuloob maanaam daara bi nga xamante ni bii ñun ñëw nañ fi 2012 i fekkoon nañ fi daara bi mais booba comme ni ko sëñ Moustapha waxee jëriñ dañ doon dugg ci kër yi rek mook daaw di laaj cinco peso par alxames booba jot woon a taxawal maanaam li nga xamante ni bii mooy mbooloo mi di daje ci benn bërëb bi yàlla dogalee 2012 biñ jugee biñ jugee été biñ ñëwee 2013 ci lañ doog a commencé nag daje nag ci génn kër ni nag war nañoo jëmmal daare bi ceeg ak dajaloo ci boobu bi ñu dajee na bit ci lañ fal Moustapha Fall jëwriñ fal yeneen yi waaye booba porte parole ak yooyu yëpp faluñu ko woon daanaka mën naa ne jëwriñ rek lan faral ak koo xamante mooy denc xaalis bi ak ñi nga xamante ne ñooy yor wàllu kaye bi di bind ak yooyu ci biir looloot daan def léeg-léeg bu dara soññee amee wala dara ñu daan ma jox kàddu gi ma di ko uh, wax bi nga xamante ne dem nañ ba 2013 bi jeex bi nga xamante ne ci la ñuy fal bureau bi yëpp nga xamante ni kenn yi nga xamante ni moo war a ngànk daayira bépp am ci la mbooloo mi yëpp jël ni ma léegi nag kàddu daayira bi dénk nañ la ko ci noonu lañ ma falee porte parole daayira bi. ba tey it ñuy dellusiwaat ci li nga xam ne mooy membre La Plata yi dañ doon dama seetlu woon bu njëkk bu màggal amaa woon ah, dangeen ngeen di booleendoo ñëw màggal si li nga xam ne mooy capital léegi nag eh, fii ngeen di màggale loolu lu ngeen waxtaane la wala daal. mbir moomu nan la demee. waaw jërëjëf sëñ Assane question boobu am na solo lool lool te dinañ sawar pour ton ci lool ndax ñun bi ñu fiy ñëw 2012 màggal gi fi jëkk a fekk ni ma la waxee booba daare bi amoon na fi waaye ak daje amu fi woon booba bari na jëmm yoo xamante ni bii fii lañ jóge woon dem capital màggal yi bi nga xamante ni bii dem nañ ba 2013 bi ñëw nag màggal googu mbooloo mi yokku ci lañ waxtaan waxtaan wu xaw a yàgg ndax mën naa ni bi ñuy taxawal màggal gi ci ñett bi màggal gi desee juróomi fan. mën naan ci lañ ko taxawal ndax discu discuter ba xawan naa yàgg ndax mbirum mbooloo moo demee noonu ci lañ waxtaan ba gis ni kat war nañoo mën a comme mat nañ fi mbooloo war nañ fee mën a taxawal bisub Serigne Touba bi eh, ndax eh, mbirum Serigne Touba warul nekk rek luy yem ci benn bërëb waaye daa war a yaatu ndax l'islam ku xam na ne bi muy commencé yonente bi muy woote ci benn néeg lañ doon teju mais bi Omar ñëwee dafa wax ni na bilaal yéeg ci kaw noddu ci l'islam noonu la jaare ba tas mbirum Serigne Touba ku ne xam na fa na mu commencé woon te tey jii yaatu na kon nag lu ñu war a yaatal la mbooloo yu ñu bëri ëpp noonu lañ gisee e, te ci biir looloot ci yaatal googoot gis nañ ni ci loolu ci leen nasaraan yi nga moo nekk fii ci la ñuy mën a xamee lan mooy yoon Serigne Touba bay mën a ñëw di bokk ak ñun bis boobu di mën a xam lan mooy Serigne Touba te looloot am nañ ci eh, mbégte bu baax ndax saa yuñ ko defee mbooloom nasaraan yu bëri dinañ fa ñëw. xewlu ci xéewal yi nga xam moom lañ fa def di xam lan mooy yoonu Serigne Touba suñ bokk taal bi nga xam nekk fii tamit mooy tijaar yi dinañ fa ñëw ñu berndeel leen kon loolu ci yaatal yoonu Serigne Touba ci noonu lañ ko gise ñu ne kon nag comme mat nañ fi mbooloo euh, mu mitteeg lépp nañ fees yéene taxawal fi bisub Serigne Touba fii ci noonu ci lañ taxawale màggal euh, ñëwoon na fii waxtaan ceeg yéen ngir ngeen di ànd ak waa capital euh, ci li nga xam ne mooy màggal gi te kenn ku nekk xam ne ne murit moom jëfe ndigal rek waaw ndigal loolee leen Serigne bi waxoon nan ngeen def ba waxtaan ci seen biir ba tax euh, ngeen di màggale. jërëjëf sëñ Assane wa loolu ndigal lool bi nga xamante ni bii ñëw na fi tamit mbooloo mi waxtaanal nañ ci comme ni ko sëñ Moustapha waxee rek ndax du jëwriñ rek moo moom daara bi wala porte parole bi moom moom daara bi waaw ba daara bi mbooloo la mbooloo mi bu ñu waxtaanee ñu jëm foofu la jëm comme ni ma la ko ci bu njëkk rek comme dañoo bëgg a yaatal liggéeyub Serigne Touba bi ñu gis ni yaatal liggéeyub Serigne Touba bi fii ci La Plata war nañ ko fee mën a yaatal ba ñi fi nekk muy suñu mbokk taalibe yi ak ñëpp mën a xam lan mooy liggéey Serigne Touba bi ci noonu ci lañ dese fii nga xamante ni mooy La Plata fas yéene fee màggal te looloot yaakaar naa ni am nañ ci lu kawe suñ njort ndax bañ ko defee ci déwén sa eh, am na yeneen i sëriñ yoo xam ne màggal si nañ fii te ñooñu ci ndigalu sëñ Sidi Muxtaar moom ci lañ fi ñëwee màggal bokk ñoo màggal gi ba yaakaar naa bu ma jumul màggal gi paas rek sëñ Sidi Muxtaar ñëw na fii tamit fekk ñoo màggal gi gën ñu cee ñaax kon jàpp naa ne ñun ci loolee ñu nekkan tamit mbooloo mi ëppan ànd ja loolu tamit bokk na ci liy yaatal liggéeyu sëriñ Tuubaa bi waaw gannaaw bi mu leen dénkee kàddu yooyu ba wan leen gannaaw dafa dellu siwaat waxtaan seeg yéen ba tax ngeen di ko defe fii wala ndigal lool rek ngeen continuer ci bi biñ ci waxtaanee mm, am na xew-xew bu amoon capital ci ñun mbokk taalibe yëpp dem nañ fa ngir yegg ko ko booba nag man dew ma wëru ma ba xam eggal nañ ko mais daal li ma mën a xam mooy ci li nga xam ne ci la mbooloo mi eh, yëpp àndoon di wax ni nañ ko fas yéene di ko jëmmal fii ñun daare bi ci loolu lañ tënku ba continuer di jëmmal màggalu Sëriñ Tuubaa gi fii nii ci La Plata. ba tey kon ñu dellu siwaat rek eh, ci li nga xamante ne ni mooy Serigne Cheikh Mati Lay mbake ñu gën ko xam ci Serigne Sidi a ah, mu taxawaloon benn fédération boo xamante ne ni. Ah, fédération boobu mi ngi dox mbooleem daayira yi ci Argentine du mën a yëpp waaye yi ci ëpp ci lan aju ba ci ñi ci àll bi nga xam ne daanaka ah, ay kilomètres yi kilomètres la lu ci mel ni Cordoba ak yeneen yu sori yooyu yéen ngeen nekk fii daanaka benn waxtu rek mooy digganteem ak capital ah, lan mooy gàllankoor gi ba tax liggéey boobu tàbbiwu leen ci ba léegi. jërëjëf sëñ Assane loolu dinañ sawar pour tontu ci bu baax a baax a baax a baax ndax eh, liggéey boobu bi nga xamante ni bii sos nañ ko. ni jëwriñ yoo xamante ni bi jóge woon nañ capital ñëw fii nii ci saal bi fii lañ toogoon di ci waxtaan ñu waxtaan ci ñu yeggeenu ponk yi yëpp lépp bi ñu demeet ca suba ga bañ xëyee ci lañ jël waxtaan bi dugal ko ci bureau bi nga xamante ni bii membre yi nga xamante ni bii ñooy bureau bi ñi ngànk daayira Jazbul Xuloob ñu xam ne ñooy bureau bi ci lañ ko dugal ñu waxtaan ca bureau booboot nekkul ni lañ fay dogal loolu mooy wéy buñ fa dogalee ñu ëpp fan jëm dañ koy indiwaat ci mbooloo mi buñ ñëwaatee ci mbooloo dañ ci waxtaanaat ak ñoom ñu ëpp ci mbooloo mi fan jëm daayira bi mënul jëm feneen fu dul foofa bi nga xamante waxtaan tamit ñu ëpp ci mbooloo mi liñ gis mooy comme fédération bi ay ponk la tënk ponk yi mu tënk mooy lu jëm ci li nga xamante ne mooy màggal gi ñu fas ko ñëpp di ko bokk di ko defee capital lu jëm ci njébbale mi nga xamante ne moom la daayira yi nekk yëpp di ànd di jébbale tamit sëñ Sidi El Muxtaar Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te ñu ànd di ko jébbale e, li nga xamante ni bii tamit mooy kër Serigne Touba gi ñu bokk ci ñu ñëpp taxaw ci liggéey ci ba kër gi am suma ma juumul yaakaar naa ponk yooyu la. bi nga xamante ne waxtaan nañ ci daara bi liñ gis mooy magal gi moom ñoom dañ ko fas yéene di continuer di ko màggal fii linga nga xamante ni mooy njëble mi it comme aman gisan nañu yoon woo xam ne ci lañ doon jëblee daara Jazbul Xulub ba mu sosoo ba léegi it ñu ni yoon woowoot ci lañ fas yéene continuer di dox li nga xamante ne mooy ki nga xamante ne mooy kër Sëriñ Tuubaa it lañ ca wax it yegg nañ ko jëwriñ gi nga xamante mooy Sëriñ Bamba mooy daara Jazbul Xulub ñi wut kërug Serigne Touba te ñu ngi dajale xaalis xaalis boobu nag duggagul fenn mi ngi fi bis bu ngeen gisee kërug Serigne tubaa dinañ boole xaalis boobu ak lépp lu taalibe yi am ñëw ànd ak yéen ci liggéeyu kër Serigne Touba googe ba mu foofu la daa bi tënku loolu tamit lan jot li nga xamante ni mooy jëwriñ Bamba li ñuy laaj mooy kër sëñ Tuubaa googu dañuy def sak weer wu dee da mboolem daayira yi nekk ci Argentine dajale 2000 pesos yóbbu fa ngir ñuy jéem koo dajale fàggu ci kër sëñ Tuubaa ndax deux 2000 yooyu di daje ndax mos ngeen cee tàbbal seen addiya. waaw 2000 yooyu jot mosuñu cee tàbbal suñu addiya ndax 2000 2000 yaat ñu ñëwoon fii ni ñu ko leerale mooy 2000 yi dañ koy dajale par at par weer daara bu ne joxe. waaye deux deux millions yi dañ ciy génne li nga xamante ni moom la ñuy dalale mara yi jóge Sénégal deux millions it dañ ciy génne wàll social pour képp koo xamante ni kii wopp nga fa ñu di la ci dimbaleeg yooyu ba lim fi ay nit yu jot a wopp yu ñu fa jot a dimbali la ca des ci lañ koy doog dugal ci kër Serigne Touba ñun nag bi ñu waxee loolu ci lañ xam ne ñun kon comme ñu ngi wut kër Serigne Touba ñun tam lépp luñ am nañ ko dajale foofu heure boo xamante kër Serigne Touba gi wan na nu leer ci la ñuy doog a jël nag ñun lañ am lépp ñëw ànd ak ñoom ca liggéeyu kër Serigne Touba ga foofu lañ tënku woon ba jëm jamono ji may wax ak yéen. maa ngi dégg ci sa biiri kàddu nga ne bu ñu demee ba gis lu leer kon dafa mel ni daal dafa am loo xam ne dafa xaw a lëndëm ci seen xel loolu it bu ma sañoon nit nga leeralal ñu ko mu leer ci bopp nit ñi li nga xam ne moo lëndëm ci seen xel ndax yaa ko wax ci sa biiri kàddu nga ne bu ñu demee ba gis lu leer kon loole lëndëm bu ñu sañoon nga leeralal ñu ci tuuti ngir ñi ñuy seetaan e xam li nga xamante ne nii moom mooy lu lëndëm li. jërëjëf euh, ko waxee dañ fi ñëwee ñun 2012 lañ fi ñëw fii nii ci dëkk bi bi njëkkee ñëwit bi njëkkee ñëw capital gis na ñuy wax ci kër Serigne Touba gi lu jiitu loolu am na suñuy mag yu fi nekkoon ak suñu ñoo xam ñoo ñu jiitu ci dëkk bi dinu wax ne nu kër Serigne Touba ñoom bañ duggee ci dëkk bi fukki at a ngi nii ñu ngi ko fi wax te boobu ba léegi taxawu fi ci biir looloo daayira Jazbul Xulóob musan naa yóbbu xaalis boo xamante ni bii ci këruk Serigne Touba la jëm ci kër Serigne Touba la jëm ñu woote ko fa ñu wax ni dañ ci jënd kër Serigne Touba boobaa léegi mbooloo mi gisuñu ci résultat ñàkk gis résultat googu nga xam ne moom la ci mbooloo mi gisan loolaa tax mbooloo mi ci seen jëm bopp ñoo ne ñoom xaalis mënatu la jóge ci daayira bi di dem ci këruk Serigne tubaa goo xam gisuñu ci lu leer loolu mooy waral maanaam ñu gis lu leer jooju foofu lañ ko teg kon bu ko defee rek duñu def lu dul rek euh, laaj la dernier laaj bi mooy li nga xam ne mooy Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke di xalifa général de kullu murit ah, bi ñu ko yóbbule keesu daayira gi ren daf ñoo xamal ne maanaam lu ngeen fi mën di indi te booloowu leen nekk benn rek loolee day gënalu ko Serigne bi doon sàkku mbooloo ngir euh, mboolem Argentine rek booloo nekk benn ah ñuy faral nag euh, di laaj ci laaj bu am solo comme émission bi li ko tax a jóg mooy njëriñu daayira ñu lay laaj maanaam lan mooy njëriñu daayira. waa daayira de ñun liñ ci xam xëy na bëriwul ndax loo xam-xam ci dara am na ñu la ci ëpp xam-xam foofu liñ ci xaman rek mooy comme suñ Seex Gaynde Fatma ni mu ko sase woon ci liñ ci dégg ci nettali moo doon njëriñu daayira dimbalante la woon looloo taxat ñu sos ko leen dimbalante ci biir taalibe yi looloo taxat ñu sos ko ci biir noonu nag ci la daayira di demee di yaatu yu bëri xew ci. yu bëri am ci looloo ci yokk yëpp nag wax dëgg yàlla man munu ma ko wax maanaam ndax sama xam-xam agul foofa maanaam li ma ci xam ci sos giñ ko sosoon moo doon suñ Cheikh Gaynde Fatma moo ko soson mu nekkaan loo xamante ni bii dañ cee war a dimbali taalibe yi te it mu nekk loo xamante ni bii daa war a remplacer li nga xamante ni mooy tooli àllarba yi nga xamante ni moom la nit ñi daan bay ndax nit ñi ci àll bi lañ daan nekk daan bay bi xamante ni bi ñi dem nañ ba léegi nag mbay moom ñu bëri daje ci taax yi xëy na looloo tax daayira ñëw bu ko liggéey boobu nga xamante ni moom la nit ñi daan liggéey ci tooli àllarba ya ñu mën ko continuer di ko liggéey ci daayira yi booloo ndax yéen a ngi jàpp booloo ku réew mi ndax yéen a ngi ko bàyyi ci seen xel wala daal dangeen a fas yéene continuer yem ci la plata rek waaw si biir booloo googoot moom La Plata ñu ngi ci fas yéene bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñu ngi ci bàyyi xel ndax suñu Sideel Muxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg loo yàgg loolu te wér ku ne xam na ni ba mu toogee ba léegi moom ci booloo googu ci lay dox yëmul rek ci murit waaye ci ñëpp la ko boole muy jullit yi mooy li nga xamante ne moom la suñu borom di wax di wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu suñ Sidi Moxtaar ba mu ñëwee ba léegi ci la teg tànkam looleen tamit daayira Jazbul Xuloob ci lañ fas yéene teg seen moo tax ñoom ñu ngi jéem a booloo seen booloo gi nag xëy na ni ko nit ñi bëggee ak ñun niñ koy gisee xay na moo dul moom mooy wuute mooy lan mooy daare bi ñu jugee fii ñëw laa ñëw capital wala feneen pour booloo ci wàllu addiye yi pour booloo ci wàllu màggal yi loolu mi ngi ci xol yi waaye nag mbooloo moo gis fan jëm rek fa lañ ñu ko jiite di mën a jëm. mooy màggale fii liñ gis mooy addiye ji ñuy dajale ñu di ko jël di ko jox ñi nga xam ne ñooy dem Sénégal ñu joxal ñu ko Sëñ Sidil Muxtaar mu bindub leetar jox taalibe yi ñu indi mu ñaan ci suuf jox leen yaakaar naa ne suuf sàng ji ji jóge ren ci sëñ Sidel Mokhtar mi ngi fi si joxagun ko taalibe yi lettre bi nga xamante ni moo jógee ci sëñ Sidel Mokhtar Mbacke tamit ñëw fii bu dee ren bi tamit mi ngi fi yaakaar naa ni bu fekkee jar na ngeen bëgg koo jël mees na leen koo génneel jàpp naa ne mi ngi ci walis fi ngeen filmer ko yóbbuwaale ko waaw foofu daal la gi nga xamante ni mooy ci fédération bi daare bi ba léegi waxagul kenn ni du ci bokkagun waaye dañi ñun fii lañ tegagun suñu tànk dox nag buñ demee nag ba gis ni war nañ caa bokkat dinañ ñëw ñëw jébbal suñu bopp bokk ca ndeem seem na borom bi subhaanahu laaj la dernier laaj bi te tàggatoog mbooloo mi ndax buñ ne njëriñu daayira yi am na ñoo xam ne ñi ngi fii ci réew mi ah yéen a ngi def chaque dimanche daayira bàyyi seeni lal ndax am na ñu nekk ci dëkk bi te du ñu teew daayira ñooñu loo leen di wax waaw loolu dina am ndax comme niñ ko waxee rek mbooloo moom moo gis rek dana am ñu am bëgg-bëgg am fuñ bëgg jëm am na ñeneen ñu am beneen bëgg-bëgg am feneen fuñ bëgg a jëm maanaam ñi nga xamante ni bii daayira moo leen yitteel soxal leen ñor leen ñu bëgg daayira moom chaque dimanche dina ñëw waaye keneen ki nga xamante nag tëdd na lalam xam ni daayira bi Serigne ngi fi xam ni liggéey bi Serigne Touba ngi fi mu tëdd ci lalam fasul yéene ñëw ci daara bi kooku am na leneen loo xamante ni bii xëy na loola moo nekk ci xolam wala loolu la bëgg loola nag dangay ngay mën a waxtaan ak nit ñi ndànk-ndànk ñu ñëw ndànk-ndànk ndax boo xoolee mbooloo mi gis nañ ni chaque année day dina dooleeku dina am ñoo xam daaw ñu ñëw dinañ ni ñëw am ñoo xamante ni daal ñëw léeg-léeg dinañ mujj di ñëw bis bu ne loolu tamit ci waxtaan ndànk ndax xëy-xëy boole ñëpp moom ci gen genn benn jëmukaay yombul ndax nit ñi seen i gis-gis mooy wute xëy na taalibe bi nga xam nekk na fi nag ni taalibe Serigne Touba la gis daare Serigne tubaa gis nit ñi liggéeyal Serigne Touba ñëwul ci daara Serigne Touba bi joxewul ci daara Serigne Touba bi la mu jàpp ci xolam ba tax ñëwul ci daara bi wala liggéeyul ci daara bi loola day jafee xam ndax am na loo xamante ni pas-pas la muy ngëm te ci xol lay nekk te xolu doomu aadama la ci nekk da dul neex a xam loolu moo tax waaye daal buñ sañeen ñëpp di ñëw ci daara bi di joxe ci daara bi ànd ak ñun liggéeyul Serigne Touba bi. ñëw daayira ndax bu amee jafe-jafe ndax daayira bi dina jóg ngir dimbale. jërëjëf Cheikh Hassane comme ni ko Cheikh Moustapha waxee rek laa lay wax maanaam daara bi maanaam fii La Plata ñun ni nga xamante ni bii ci wàllu dimbalante niñ fi organiser ci li fi jaaragun lépp ci wàllu dimbalante mooy que ni lépp bépp jafe-jafe bu fi doomu aadamaam mboolem jullit yi fi nekk yëpp ñun ñooy dajale asunu ñaq dimbali ko mboolem jullit yi du murit du tiijaan ndax dañoo jàpp ni loolu ñëpp la war maanaam ñëpp ku nekk ku fi yeewoo rek ndimbal moomu war na la ci jëmm jooju maanaam am maa nag li nga xamante ne mooy daare Jazbul Xuloob nag ci waxtu wi may waxee yow ñu ngi ci ay programme ndax daare bu ne day yokk programme boobu bokk na ci li ñuy wax wàllu social ba nga xamante ni bii commencé nañ ko taxawal fii nga xamante ni mooy ci biir daayira bi ci keno yi nag ñu ngi koy tënk ndax xam nga social dafa xaw a doy daa nekk kenn lu doy waar ko war a tënk ci kenn yu wér ba nga xamante ne bu commencé du am ay jafe-jafe ci kenn yooyu nag waxtu wi ma wax yow ci di ko tënk xëy na dimanche yi jàll yëpp gan yi gan yin fii am maara ba tënk ko ba daanaka taxawal kenn yi ba ba la ñuy mën a continuer bu baax waaye daal li xam mooy wàllu social fii ci ci la plata moom bépp jullit bu fi nekk wala bépp sénégalais bu fi nekk rek tënku nga ci ba képp ku fi am jafe-jafe ñun ñëpp dinañ boole suñ doole dimbali la. mbokki jullit yi ñuy seetaan kon bu ko defee ñu jox rek sëñ Moustapha mu am kàddu yu ci sànni. asalaamaaleykum maa ngi jégluwaat rek euh, ci bari wax gi li sëñ Moustapha wax dafa am question bu ma ci ñor ma gën ko leeral muy que ndax pare nañ pour ñëw bokk ci fédération bi maanaam waa La Plata waxuñu duñ mus a bokk ci fédération bi ci mbooloo ak kër sëñ Touba ndax gis ngeen sëñ Mamor Mbacke bu fa ñëwee ñëpp ko bokk ñëpp fay ñëw te liggéeyub sëriñ tubaa ba nekk fee ñun ay taalibe sëriñ Touba di liggéey sëriñ Touba yaakaar naa duñ taxaw ne duñ ca mus bokk waaye nag mbooloo dafa am ni muy doxee comme ni ko sëñ Moustapha Thioune waxee ci mbooloo mi sax am nañu àndoon ñu dem te waaye li ëpp ci mbooloo mi dañ cee àndagut te leer loolu ñu doon wax gis nañ lu leer nañ sëñ góor mi am waaye na ko muy kër sëñ Touba gi nga xam ne si ne biñ koy filmar ak biñ koy kii gis nañ ko jot nañ ci vidéo yi kon yaakaar naa gis nañ lu leer ba ci màggal googu ngay wax ñun màggal seen nañ Buenos Aires mais boobu dañu lu yëpp saal te ku nekk xam ne ni mbooloo mi doon nekk ci saal bi sax xajuñ ci saal ba ñun comme que lu yëpp saal moom màggal maanaam màggal lu yëpp kon dañu lu yëpp saal fii màggale waaye daqul que ni bis nga xam ñun ñëpp waa euh, taalibe yi yëpp bëgg a liggéey ko bu dee ba leer ne mbooloo mi sax bu fa demee dina ko xaj bu ci mbooloo mi àndee incha allah mën nañoo dem ba fa màggali loolu bañuñu ko waaye boo gisee ñu doon màggale fii fi ñu doon màggale waa Buenos Aires rek xajuñu fa kon bu ñëwee yokkootu ca day doon gën a bari moo taxoon ñu insisté màggale fii waaye maanaam wala plata tam mu suñu duñ musa bokk ca fédération bi te yaakaar naa liggéey Serigne Touba foo ko fekk boo dee tëlub Serigne Touba bu ñëw caa bokk xaj na nag mbooloo moo am ni muy doxee ca di dem ci mbooloo tas sa mbooloo tamit loolu da nga koy xoolaat te ñi nga xam si ne da dañoo xamul wala am na loo xam si ne buñ ko gisee nañ dem ba comprendre da ngay naxanteeg ñoom ba ñëpp comprendre bu ko defee maanaam loolu moom lu leer nañ ñu dem ci demin wu rafet incha allah waaye duñ wax waxuñu duñ te musa bokk duñ te musa bokk loolu kenn wax ko fi waaw ñu bàyyi xel incha allah ba xañ na ay jëmmi jamono xañ na dina ñëw wala yàggatul incha allah ba ci liggéey kër moom waxtaan nañ ci ba pare moom bëgg bu soobee kenn man ñu ca ndax jot nañ ci vidéo yeeg lépp biñ ci jotee kere ci tàng-tàng lañ ko dugal ci bi waxtaan ci parce que ñoo ko waxante woon suñu biir biñ fi ñëwee neen leen kër sëñ Tuubaa moom bis bu taxawee boobaa duñ xaar kenn duñ ci woo bañ ciy soññ te liggéey sëriñ Tuubaa am na woote am na soññe amul xaare te kenn du bëgg kenn man la ca incha allah waaw sëñ Moustapha gannaaw bi ñu taxawalee fédération bi boobu ba léegi ñu ne gisuñu ci waa La Plata ñu dem ba taxawal Kër Sëñ Touba waa La léegi ñoom ñu ngi fas yéene ñëw ànd ci liggéey boobu mbaa du def dara ci seen xol daal. loolu mos a def dara suñu xol ndaxte loolu li njëkk Kër Sëñ Touba gi taxaw ñun waxtaan waxtaan nañ ci ba tënku bëgg nañ Kër Sëñ Touba waaye maanaam li fi fiy dajale ngir Kër Sëñ Touba bis bu te bis bu mën a seere njëkkee am Kër Sëñ Touba dañ fay yóbbu lépp. loolu moom wax waxtaan nañ te avant avant ñuy gis vidéo bi avant ñuy gis vidéo bi ma sëñ góor am waaye boobu waxtaan nañ ñun ba tënku ci loolu du mos a def dara suñu xol ndaxte ay taalibe sëriñ Tuubaa lañ te taalibe sëriñ Tuubaa yaakaar naa fu mu fekk liggéey bu bu jay dem ndaxte kër dem ba ko ma moomu ko dañ ni sax maanaam li sëñ Murtala daan wax naan kër lislaam kooku julli di ci réew mi yëpp ñoo ci bokk yam waaye rawatina ñun ñi nga xam dañ aslamtu nafsi yaakaar na kon loolu maanaam du def dara ci ñun incha allah dañ cee ñëw ñëw bu rafet ànd ci taxaw bi ak liggéey ba kere muy àgg ndaxte kër sëñ Touba maanaam kërug lislaam la ñëpp ci bokk yam waaw te am gi mu am fee yàlla xam na ko ak yonante bi mbooloo mi ñu ngi di may déglu sëriñ bi fi ñëw rek maanaam ko ñaanal ñu kër am sëñ Touba ci dëkk bi waaye nag maanaam buñ ko mënee njëkk am bana géré ndax mooy capital bi ca maanaam taal bi maanaam euh, surtout sëriñ bu ñëw foofu lay dal surtout Seexu Sëñ Tuubaa bu ñëw fa lay dal kon maanaam foofu la gën a amee solo mu am fa fa amee pare nag yàlla am ci yeneen dëkk yi kon am gi nga xam am na ko mën a gérer ko ku nekk ak sa maam mbégte la ci ñun mu màgg ne ñëw nañ ci incha allah duñ xaar sax kuñ ci woowal kuñ ciy soññ bañ jotee ci am solo wi nga xam ne amaloon nañ ko fii ci La Plata daayira Jazbul Xuloob ah ñu ñëwoon fi tey seet si leen ci li nga xam ne mooy émission njëriñu daayira yi ah di émission bu am solo kon mbokk yi du ñu def lu dul tàggatoog yéen ah, di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.